asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki àddina dama ñëwaat xam naa ci beneen live rek pour euh, am ak yéen nag benn waxtaan bu gàtt du gudd waaye je pense que ce serait euh, assez informatif ñun ñëpp gis nañu li xew tey ñu ngi koy xool ñu ngi xool la xew conseil constitutionnel lundi ba léegi euh, gis nañu ñi jot a jàll gis nañu ñi ñu jot a gàllankoor ci côté opposition comme côté parti au pouvoir euh, bi ma ci gën a yéeme nag ba léegi dama ciy ñëwaat moom mooy bu Daouda Ndiaye gis nañu Daouda Ndiaye yéen a ngi fàttaleku chercheur docteur manipulateur Daouda Ndiaye menn naka ngeen mën a concevoir tey ñii ñu gàllankoor yépp ki ci gën a fës muy Mimi Touré xanaa ku ko xam xam ne vraiment xanaa nag bu dul dara dara dara dara dara dara dara dara elle politiquement très connue au Sénégal euh, gis ngeen fi ñu jaarak moom bàyyi ab daw da Ndiaye jàll ñu gàllankoor ab Mimi Touré loolu ni mu yenoo maanaa sénégalais bu ko comprendre nga wax ma ko xam naa nag gars yi ñun ñëpp a ngi tàccu rek bravo diw jàll na diw jàll na waaye nañu gën a focus nañu gën a focus sur l'essentiel parce que njuuj njaaj mi ngi ci biir conseil constitutionnel bu leer naññ nag parce que dinaa leen wax euh, dafe naa barki boo Njaay dégg ngeen ma fi man maa dal ci kaw coon ñaa bay fecc ci bopp bi waaye ci démocratie la ñu ne xam naa ne mën ta gañe ay élection Sénégal loolu kenn layam layamew waaye waroon nañu au moins jaar ci yoon bi normal pour konteel ko ay parrainage am comme niñ ko defee ñëpp waaye conseiller constitutionnel xam leen ne ordinateur ngeen yor di compter ay parrainage xam leen ne ñun xam nañu aussi programmation we know programmation xam nañu ne computer is programmed xam nañ ko lépp lu fa ci biir ñun xam nañ ko Seydina Ousmane Sonko mu sell mi Seydina Ousmane Sonko mu sell mi ñu xam ko te àdduna bi yëpp xam ko te àdduna bi yëpp bëgg ko te àdduna bi yëpp tànn ko te àdduna bi yëpp di ko bàyyi xel suba lay jàll le 5 janvier senegal dafay mel ni tulle ak male comme Tulle ak Malle bàyyi leen loolu xel Sénégal dafay mel ni Tulle ak Malle bàyyi leen loolu xel gis nga Sénégal dama bëgg nit ñi xam ne Sénégal c'est un beau pays réew mu baax la réew mu am futur la réew mu ñu mën a développer la réew mu ñu mën a njariñoo la malgré bandi ay band ñoo ñu jiite nag loolu àdduna bi yëpp xam nañ ko malgré nag band yooyu aussi band bi gën a mag muy Amadou Julde Ba la ñu tànn pour mu doxal leen seen diil loolu tamit xam nañ ko waaye dinaa leen garantiral ne on fera face xam leen ne banditisme bii ngeen di def sénégalais yëpp yëg nañ ko même sénégalais bébé bi juddu démb xam na ci li ngeen di dox ñu ngi leen di bàyyi xel gis nañu ni ngeen def suñu yaay ji Aïda Mbodj ñu ñu moom suba lay jàll incha allahu rabbi ñu ngi koy bàyyi xel ñu ngi bàyyi xel suñu mama Aïda Mbodj suba di bàyyi xel Seydina Ousmane Sonko mu sell mi gis nañu tey banditisme bi maanaam c'est flagrant ñu ngi koy gis ñoom ak seen programmation ak seeni i tappale dañuy bàyyi benn nit jàll dinañu bàyyi benn nit def nii benn nit def na le après ñu jéem a kale fii beneen nit waaye loolu yëpp ci tappale bi la bokk nañ ko bàyyi xel ay bandi lañu sekkal ay délinquant ay vayu prêtez attention bu ñu nelaw don't let don't let your guards down down maanaam bu ñu bu ñu puukare nañu préparé wu sénégalais yi fépp ci àdduna bi tey gis naa ñun ñëpp ñu ngi rafetlu ndeysaan poste yi joyeux anniversaire à ex-Pastef xaw ma lu tax sax ñun ñuy nangu ñu koy tuddee ñun ex-Pastef ñun bu ñu leen may boobu importance ils ne sont pas importants c'est des voyous et des délinquants Pastef ñoom mënuñu koo dissoudre ñoom xam nañu loolu légalement constitué ñoom xam nañu ne mënuñoo dissoudre Pastef maa ngi ci jaaraale di souhaiter joyeux anniversaire à tonton Djibi Gueye Ndiaye voilà suñu tonton bu baax boobu nga xam ne vraiment il a tout donné pour le Sénégal voilà moromam yaa ngi jël ay milliards di teg ay deal bu doon beneen doomu aadama moom it mi ngi ci même mbir mi mi ngi dox retraitam waaye il a tout donné pour le Sénégal lii la ñuy wax le don de soi ñu mel noonu tey Sénégal buy yekk ci càppaandaw ga yàlla nañ ko fekkee ak ñun ñëpp xam nga ñun déjà lage ça monte mais il est toujours là et toujours debout et toujours présent ce jeune homme duma ma ko vieux sax ce jeune homme yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu dund cent ans sans ordonnance euh, comme ni ma leen ko doon ñaanee léegi euh, dama ne euh, suba man mooy sama bisu juddu waaye li ma ciy ñaan li ma ci jublu du pour ku ma ne joyeux anniversaire waaye pour bésu juddu boobu ñu jël ko ñu baaxee ko Seydina Ousmane Sonko mu sell ñun ñëpp ñu jubal suñu attention ci Seydina Ousmane Sonko mu sell mi ak validation parrainage am li ci des yëpp mën nañ ko lijjanti après loolu li ci des yëpp incha allahu rabbi on va on va fêter voilà mais ñun suñu liggéey suñu concentration suñu focus du ka Seydina Ousmane Sonko dañ koy valider ndax valider na ba pare waaye liñ koy def mooy mooy juge yooyu ñu xam ne le président Ousmane Sonko c'est le choix du peuple sénégalais c'est lui que le peuple a choisi c'est lui que le peuple ku ci indi benn njuuj njaaj dangaa bëgg a taal réew mi dangaa bëgg yàq réew mi bàyyi leen loolu xel Modou njaay Tans damay ñef sa yow dumay damay jàll sa mu ne Tunkara booy yi Waly Seck la woon non Waly Seck mooy sama booy yow ku la ku koo yab bul ma sëñ bi bul ma bul ah. ku bind fii lii nga dind fi yéen ku ñàkk xorom ngeen quoi nit ñi dañuy nekk ci lu am fulla ak fayda ngeen di bind seen yu ñàkk xorom yi man damaa mën a nekk booy Wally Seck Wally Seck maag papa ma bokkoon koñ man la sama booy man maa leen daan bu max ba ñu amul lu ñu lekk ba ñu amul fu ñu taxaw ba ñu amul oto bu ñu damal ñun ñoo leen daan bu max ba ñu taxaw voilà te loolu mooy suñu responsabilité te du moom rek yàgg nañ ci voilà léew puusal noonu faut nous ñun dama dama mën a nekk booyu Wally Seck lu la jot yow voilà donc euh, gars yi comme ni ma leen ko waxee incha allah le président Ousmane Sonko il est candidat et il sera candidat et il restera candidat le président Ousmane Sonko il est candidat il sera candidat et il restera candidat il faut doomu aadama i xam loolu Le président Ousmane Sonko, il sera candidat, il est candidat et les Sénégalais vont l'accompagner au palais de la République. loolu bàyyi leen ko xel li ngeen bëgg ci Sénégal du am li ngeen bëgg ci Sénégal dootul am c'est fini Macky Sall pare na il a donné son dernier discours au 31 décembre 2023 si quelqu'un l'a écouté même moi je ne l'ai ba léegi mënuma laa ne lii la waa ji wax démb rek maa ngi ciy wax ak sama benn xarit mu ne war nañoo wax ci discours Macky Sall bi ma ne ko billaahi de discours Macky Sall bi boo ko boo ko déggee rek mooy dégg naa ko man dégguma ci dara dégguma ci dara man dégguma sax li Macky Sall wax parce que man Macky Sall du du ñu moromam ñun ñun Macky Sall du du ñu mappandoom démb rek xool leen délinquant bi li mu defati il est allé là-bas à Fatick mu baptiser fa ab hôpital dégg naa wañaar loxo nit ñi ngente ko tuddee ko Marème Faye Sall e ils vont comprendre c'est après qu'ils vont comprendre parce que fépp fu am turu Macky Sall ci Sénégal man de man man maay jiite loolu pour ñu dindi ko fa fépp fu turu Macky la am du ñu xaar président bu bees bi ñëw sax pour mun nañu changer naa tur bi dañuy dem fokkati lépp dindi ko fa sànni lépp bu soobee yàlla gars yi ma waxaat beneen kàddu nañu bàyyi xel opposition bi ñi jàll yépp ci opposition bi nañ leen jox cër nañ leen dooleel buñ leen néewal doole incha allahu rabbi boobu moom kenn du ko wax cent onze dana dana jàll jàll na ba pare waaye la ca des pour ñu confirmer ko léegi nii incha allahu rabbi danañ ko mattali ñu confirmer ko ndax Pastef moom xam nga ne amul layam layaani lépp lu ñu war a def incha allahu rabbi danañ ko def cent onze léegi mu matle monsieur Bassirou Diomaye Faye doublon yooyu ñu ko defaral léegi mu wap mu matle mais dama bëgg na sénégalais yi l'opposition nañu focaliser wu ngir yàlla ak yonent bi bu leen fàtte ne élection présidentielle la ñu jëm dama bëgg ngeen bàyyi ma xel bàyyi leen ma xel opposition présidentielle la ñu jëm opposition opposition opposition déglu leen ma élection présidentielle la ñu jëm bàyyi leen loolu xel élection présidentielle la ñu jëm donc nañu may opposition bi cër respecté leen bàyyil ku ne akam ak yelleefam kenn ku ne jël ay nitam ñu wateel ko incha allahu rabbi bu président Ousmane ko ñëwee premier tour élection bi dana faranku lay waaye opposition bi dimbali leen ñu ngir yàlla ak bi rek c'est pas le moment de faire la guerre nañu focaliser wu pour le moment nañu focaliser wu le restons focus voilà unis on gagne dispersés on perd loolu bàyyi leen ko xel bu ñu dajaloo dañuy gagner waaye bu ñu tasaaroo man tag mënuñoo gagner donc bàyyi leen loolu xel nañu joxante cër rek incha allahu rabbi yàlla dinañu may ndam wa asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu